international seneinfo point net dalee nag jàmm si tënku xibaar yi mercredi 6 euh, décembre 2023 dañ koy jëkkee rek si bi nga xam ne def la euh, def benn déclaration si ministère de la jeunesse et de l' am loolu na ko fële si assemblée nationale moom moom nee na Sonko dafa recevoir ay fonds occultes si exploitation pétrole bi ak gaz bi nga xam ne découvrir nañu ko fële si euh, côté large du Sénégal nee en même temps aussi Ousmane dina yokk kaaraangeem ak kaaraange njabootam loolu nag euh, bu ko ay sénégalais déggee ki si mel ni euh, Madiambal Diagne ak euh, El Hadj Malick Ndiaye ak même Pape Alé Niang ñoom nee nañ loolu warul na nekk parce que normalement bu fekkete ne loolu am na donc Macky Sall si boppam moom moo ko waroon njëkk a wax waaw boobu ba tey Macky waxul dara kon dafa mel ni ah, loolu ay wax yoo xamante ne warul la parce que Macky Sall bu fekkoon ne na ay preuve yooyu aussi Ousmane Sonko kon du affaire bi du egsi fii loolu la loolu la Pape Alé Niang xam ne na loolu loolu daal dafa jàpp ne ay wax yoo xamante ne taxawul la ñu des rek ba tey euh, si audience bi nga xamante ne audience spéciale Ousmane Sonko moom pour ñu réintégrer ko dans les listes électorales euh, fi nga xamante moom mooy Ousmane Sonko ñoom ñoom mu ngi loolu mu ngi koy xam euh, mardi 12 décembre la ñuy euh, statuer bi nga xam ndax moom Ousmane Sonko day bokk euh, bokk ci élection yi wala du ci bokk. ñu ñëw beneen fànn ci xibaar yi ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Fatou Fall alias Fall Fleur moom mu ngi commencé di am tuuti koppar parce que. moom ngi xamante ne moom moo doon liggéey Dakar Naaf ñu licencié ko le 20 novembre bi passé donc bu ko licencié ay jegeñaaleem ak ay partisans nga xamante ne moom Ousmane Sonko Euh, surtout ki nga xamante ne moom mooy avocat am nga xamante ne moom mooy euh, mooy maître Khoureyssi Ba dafa digaloon rek pour ñu ubbi benn euh, compte pour mun si verser ki nga xamante ne moom mooy activiste boobu xaalis donc xaalis bu ñu versé toll na si lu mot 7 millions de francs CFA juróom-ñaari millions donc léegi kajo bi dafay continuer di wéy rek ba 10 décembre bi di ñëw. Euh, lakkajoot bi di jeex donc ñu ñëw si beneen pann si xibaar yi ki nga xamante ne moom mooy euh, major bu Kër Massar major Abdoul Aziz Kandji moom dafa teg ñeenti doomu aadama yi nga xamante ne ay billets noirs la ñu yoroon euh, montant bi dafa tolloon si deux de francs CFA ñu jóge woon Gambie ñëw Sénégal pour mun ko fi jëfandikoo ki nga xamante ne moom mooy major boobu nag nekk Kër Massar moom daf leen teg loxo. ñeenti xale yu góor yooyu nee na nag ñeenti xale ki nga xamante ne moom mooy doomu kilifa bu mag ah moom def ci bokk ci ah, ñaar ñeenti nit yooyu nga xam ne def nañ ah, boobu ah, ñaawteef ñu ñëw ci actualité international ñaari réew yi nga xamante ne moom mooy Mali ak Niger ñoom dañoo génne benn communiqué boo xamante ne ñu ngi dénoncé euh, convention yooyu nga xamante ñoo ngi ko signé ak France parce que jàpp na ñaari jàpp nañ ne convention yooyu euh, arrangé wu leen euh, dafa nekk yoo xamante ne dafa am ay juut ñaaj ay sikki sàkka loolu moo waral ñaari dëkk yooyu dajaloo ah, pour vraiment booloo def benn communiqué boo xamante ne dañuy dénoncer ah, ñaari convention yooyu nga xamante ne signé nañ ko ak France ñu ñëw rek si Corée du Nord Corée du doon nag bu ji ay ambassade am si yeneen réew ku bu mel ni Espagne ak yeneen réew ak Ouganda Angola donc moom ñëw na fii Sénégal ak Guinée Bissau tëj ay ambassade am nee na nag lu tax lu waral boobu ñu la décision boobu nag c'est parce que euh, ñoom seen économie dafa xaw a sooxee moo tax ñu jël décision tëj ay ambassades yu bari yoo xamante ne nekk nañu ci senegal ak Guinée Bissau ak yeneen dëkk yoo xamante ne ku ci mel Angola Ouganda ak wala euh, Espagne ñu ñëw si actualité sportive ñu ñëw si euh, coupe euh, d' Afrique féminine bi nga xamante ne war na am fii war na am année deux mille vingt quatre bi euh, ñu nekkoon si premier tour éliminatoire yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaynde yu jigéen yi ñoom doon nañu egypt donc ñi nga xamante ne gaynde yu jigéen yi ñoom démb jongante ak équipe ak Égypte kenn doorul donc ñu ne pour la première fois si histoire football si jigéen ñi ki nga xamante ne mooy capitaine Korka Fall ak euh, ñu nekk ci équipe bi yëpp ñoom dinañ dem Maroc euh, pour la pour édition bi nga xamante ne moom moo war a am ci Coupe d'Afrique euh, des Nations féminines. donc chers internautes Sene Info si Sene Info point lii la leen indiloon ci tënku xibaar yi tey mercredi décembre ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te dinañ ñaanal yendalu jàmm.